alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa asxaabihi ajmaiin amma baad mbokki jullit yi sunu boroom tabaaraka wa taala moo bind doomu aadama moo ko teral moo ko xéewal sunu boroom tabaaraka wa taala moo yónni yonent yi ngir ñu tegtal doomu aadama yoon wa nga xam ne mooy wajub ñu moom moo yónni yonent yi ngir ñu wéetal sunu borom tabaraka wa taala ci jaamu ko moom dong bañ ko booleeg dara moo tax sunu borom tabaraka wa taala ne wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan xeet wum mën a doon ba ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woom ci mën a doon yónni naa ci ñoom ab yonent ngir lan an ibudu llaha wajtanibu taaxut ne jaamu leen yàlla te wattandiku lépp loo xam ne xeetu bokkaale la mu ne fa minhum man hada allah wa minhum man xaqat alayhi dalaala yonent yooyu biñ ñëwee nit ñi ñaari xaaj lañ am na ci ñoo xam ne dégg nañ seenu boote jël la leen yonent ba andil am ca ñoo xam ne dañoo topp yoonu réer kon yonent yooyu digle jaamu yàlla te wéetal ko moo doonoon seen mission bi gën a rëy wattandiku leen wattandiku loo leen ak bokkaale ci sunu borom tabaraka wa taala ci seen mission bi gën a rëy la bokkoon ndax bokkaale mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar boo xam ne ab jaam dana ko moye boroomam moo tax sunu borom tabaraka wa taala néew na ab bàkkaar muy wax ne bàkkaar bu màgg la nga di gis mu wax ko lu dul ci bokkaale moo tax mu nett liñu ko mu ne laa tushrik billah bul bokkaaleeg yàlla dara inna shirka la zulmun azim ndax bokkaale dafa nekk bàkkaar bu màgg li ko waral nag mooy tooñ gu rëy la ndax tooñ bu nit ki tooñee moroomam walla mu tooñ boppam manees naa jàpp ne mbindeef la tooñ waaye nag bu àggee ci tooñ boroomam nag ki nga xam ne moo bind moo wër sa gël sa dund ci loxoom la nekk sag wér sag am sag ñàkk sag dee lépp ci loxoom la nekk bépp xéewal bu jaar ci sa loxo nga di ko am ca fa nga juddoo la jiitu fa nga juddoo sax ba doomu aadama nekkee ëmb ci biirub yaayam mu di ko xéewal ba mu juddu continuer di ko xéewal ba keroog muy dugg bàmmeel la ca mujj mooy xéewali ko nit ñi ko yanu defar ko ba mu baax sàmm ko yor ko ba dugal ko ci biir bàmmeelam loola di xéewalam gu mujj digganteem ak doomu aadama yi loolu lépp sunu borom tabaraka wa taala ko ko mu ndax dana jaadu ca nit ka mu weddi lool lépp seet li taxoon boroomam bind ko mu jël ko di ko jox keneen wala leneen muy jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran nee na waabudullaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara bu leen ko bokkaale ak dara door caa teg ne wabil walidaini ihsaana nga xam ne rafetal jëme ci ay waaju ay waajur bokk na ci jaamu yàlla yi gën a sell te gën baax waaye jaamu yàlla te bañ koo bokkaale moo jiitu loola doo a ñëw sunu borom tabaraka wa taala nee na inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla sunu borom tabaraka wa taala du jéggal koo xam ne dafa faatu yóbbaale bokkaale mu daaneele aay jooju mu andi ko ñaari yoon beneen bi nee na wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima ku bokkaale yàlla ak dara nee na kooku day duur na indi na aw duural wu mag woo xam ne bàkkaar la feese ci digganteem ak boroomam beneen bi ci des bi mu waxee ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha mu daaneele ko ne wa man yushrik billahi faqad dalla dalaalan baida ku bokkaale yàlla ak dara nee na réer na réer goo xam ne gu sori la maanaam nit dana réer fekk jege ne yoon wa mu geesu rek gisaat yoon wa delsi waaye que réer gu sori digganteem ak yoon wa kenn xamul nu mu toll bu bëggoon a delsi ci yoon wa duutu xam penku lay jëm wala sow wala ndeyjoor wala càmmooñ loolu mooy réer gu sori dalan ci yàlla musal borom bi tabaraka wa taala nee na wa man yushrik billahi képp koo xam ne dafa bokkaaleeg yàlla nee na dafa mel ne koo xam ne dafa yëkkatiku ci kaw asamaan si ba ca kaw mu jekki-jekki rëcce foofa di daanu mel ne ay picc ko wër di ko for wala ngelaw li daaneel ko ca palaas boo xam ne bu xóot la maanaam yëkkati ko ba ca kaw ba ñépp ne kii boroom xiit la mu wëlbati ko jaxase ca leneen muy bokkaale kooka nee na dafa daanoo wut fam taxaw waaye dafa yéeg ba ca kaw ba ñépp seen ko mu daanoo bi muy daanu it ci kaw suuf waaye dafa fekkaat kàmb gu xóot fi makaanin saxiiq place bu xóot mu tàbbiwaat ca biir faf kooku la nuróoleeg koo xam ne day bokkaale boroom bi tabaraka wa sant na mboolem jullit yi digal leen ne nañ seet wecc ci bokkaale ak woy bokkaale yi buñ jotee ñoom dara ba ci wàllu sëy sax sunu boroom nee na su ngeen di takk ay soxna bu leen takk jigéen juy bokkaale bu leen takk jigéen juy bokkaale ba keru muy gëm nag su demee ba nangoo gëm kon su boobaa baax na mu ne koo xam ne dañoo yàqob daram ba ne ab jaam la sax ci biir askan wi waaye fekk ku gëm yàlla la nee na kooku moo gën as gor ak boroomu juddu su fekkee ne day bokkaale bu dee ca góor ña it noonu bu leen may seen doom mbukk wala seen kilifteef bu jigéen bu leen ko may góor goo xam ne kuy bokkaale la suñ boroomay wax de nee na kooka su fekkoon ne ab jaam la te ànd naag ngëm yàlla kooko moo gën nga fekk koo xam ne si ku juddu juddu bu rëy rëy la ba noppi walbati ko di bokkaale noonu la sunu borom tabaraka wa taala diglee ne na ngeen wattandiku lépp loo xam ne xeetu bokkaale la moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ittabi ma uxiya ilayk toppal li nga xam ne moom lañ wàccee ci yow min rabbika mu jóge ci sa boroom muy alxuraan ak sunna mu tegal ko ko ci ne laa ilaha illa huwa moom mu dong mooy buur bu yeyoo ñi koy jaamu wa arid an il mushrikin wanal gannaaw bokkaale ñépp bul bokk ñoom dara noonu ay alxuraan yi ñëwee di tere ku bokkaale noonu la di xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa di wattandikuloo xeet bi bokkaale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne na ngeen wattandiku juróom-ñaar yi nga xam ne ku ca tàbbi tàbbi nga ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi te gën caa garaaw dañ ne ko yooyu mooy yan mu jiital ashirku billah mu ne bokkaale ak yàlla kon kooku la jiital ci bopp bi door caa teg njabar ndax moom itam ca la bokk door caa teg bakkan boo xam ne boobu bu yàlla rëyut la door caa teg lekk riba door caa teg lekk aralu jirim door caa teg wone gannaaw ci bis boo xam ne wone kanam rek la sunu borom tabaraka wa taala santaane moo xam jihaad la fi sabilillah moo xam dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey lislaam bu taxaw la boo xam ne lim laaj mooy nit ñi jublu ko ku rocci ku wone gannaaw su boobaa ñi def tawalli yowma zax bi ci ngay bokk la ca tegu muy juróom-ñaareel ba nee na mooy fekk ab jullit bu jigéen bu maandu nga tuumaal ko ne kii moykatu yàlla la yooyu bàkkaar bàkkaar yi li ñuy bari bari ak yi ñuy bon bon yooyu ñoo ci yées waaye li ñuy jëriñoo ci xadis bi mooy ñu xam ne ba nekk ci njobaxtal la mooy ashirku billahi wa sixar mooy bokkaale ak yàlla dara ak njabar ci xadiisu abi dar radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xëy toog ak saxaaba yi ma ne leen biig day am na ku di kël maanaam ndaw lu jóge fa sama boroom daa di may xabaar ba noppi bégal ma ci lan la ko bégal nee na ko képp koo xam faatu na ci saw xeet te yóbbaalewul bokkaale kooka àjjana la jëm kooku àjjana la jëm kon loolu mbég la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abu dar ne ko ah su defee yeneeni bàkkaar nag wa in zana wa in saraq su fekkee da doon jaaloo di sàcc nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa in zana wa in saraq donte da doon jaaloo di sàcc sax kon bàkkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy bakkaaru bokkaale beneen bàkkaar bu mu mën a doon suñu borom tabaraka wa taala xalset na koo jéggale ba mu des bàkkaaru bokkaale nag buñ ko waxee lañ ci jublu mooy bokkaale gu mag ga gi nga xam ne su ko nit ka defee su ko yégee ak su ko yëgul génne na ko lislaam ndax mbokki jullit lislaam day toj ni am njàpp dafa am ay nawaqit ki mën naa jàpp ba noppi am njàppam toj bu amul xam-xam naa jàpp ne njàpp mi baax nag mu dem julli fekk julli ga du baax noonu njàpp di toje lislaam day dem ba mu yàgg mu toj ci nit ki kon nit ki njàpp lislaamam dana toj fekk ma ngay wax laa ilaha illallah ma ngay julli ma ngay woor ma ngay dem màkka mi ngi def yi nga xam ne moom lañ santaane ci bitti yépp waaye fekk kóllëre ga doxoon digganteem ak boroomam muy tawxiid kóllëre googu dagg na ko kóllëre googu ginnaaw xas na ko dagg yeneen yi ci des yépp dara duutu ci baax mu ngi mel ni contrat boo xam ne da ko signé woon ak borom entreprise bi di liggéey ba mu yàgg nga xëy dagg sab contrat ne ko bàyyi naa ca suba nga xëy di liggéey dalay toog di la xool rek waaye bu weer dee doo kon noonu la demee jaabir ibn abdullah radiallahu taala anhuma nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam jenn waaye dafa ñëw laaj ko ne ko dama bëgg nga wax ma yaar yi nga xam ne yu am ba noppi la nga xam ne sunu borom noppi na ca amatul jaratul xalaat loola moom pare na ci moo jibataan mu ne ko képp koo xam ne faatu na te bokkaale wut kooko àjjana la jëm looloy benn bi képp koo xam ne faatu na yóbbaale dara ci bokkaale kooko sawara la jëm loolu mooy bi ci des yooyu ñaar sunu borom tabaraka wa taala noppi na ci kon bokkaale gu mag bokk jullit yi mooy jël dara bokkaale gi génne nit ki ci lislaam ñuy wax ne lislaamam toj na te bu ko faatuwaalee mu tabbal ko sawara moo di jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla rekk moo ko yeyoo nit ki jël ko defal ko leneen walla keneen leneen nag suñ ko waxee mën naa doon ay bant yuñ samp mën naa dooni xamb mën naa dooni xiram mën naa nekk xarga fuufa mën naa nekk jinne mën naa nekk malaaka ak tur yuñ leen mën a jox buñ ne keneen mën naa doon doomu aadama ndax doomu aadama it des na ko yëkkati ba àggale ko ci di ko jaamu kon bépp xeetu jaamu yàlla boo xam ne yàlla dong nga ko yeyoo nga jox koom mbindeef su boobaa loolu mooy ashirkul akbar ca misaal ñaan ñaan nga jëmale ko ci lu sunu borom tabaraka wa taala moo xam ci xërëm yi nga ko jëmale wala doomu aadama ji nga wax ne yàlla na mu may nangam kooku bokkaale la bokk na ca li ñu tudde rendi rendi boo xam ne nit ki da cay jublu rendi boo xam ne da koy jox leneen loo xam ne xëy na ak wér la ca bëgg wala wërsëg la ca bëgg comme niñ koy defee ci xàmb yi ak xëram yi moo xam ci xabru la ko def wala da ko defal jinne wala xamb la ko defal bépp xeetu rendi boo xam ne ñi ngi koy def di ca yéene lu dul yàlla su boobaa koo ko bokkaale lay doon day dugal nit loolu ay misaal rek la bokk na ci mooy ragal ku dul yàlla ragalu baatin goo xam ne dangaa yaakaar ne nit ki wala jinne ji wala leneen li su la meree mën na laa lor wala mën na laa feebaral wala mën na laa teg lu mel noonu wala yaakaar joo xam ne yàlla rek lañ ca war a yaakaar nga yaakaar ca meneen bindeef yooyu yépp xeeti bokkaale la sun borom tabaraka wa taala ŋàññi na bokkaale nee na ñii di jaamu ku yàlla ñii di jaamu lu leen du mënta lor mënu leen a jëriñ ñii wax ne ñii ñoonuy tiinu fa yàlla ëllëg nee na ñooñu nekkuñu ci dara nee na ñi nga xam ne yéen a ngi leen di woo inna alladina tad'una min dunillah ñi nga xam ne yéen a ngi leen di ñaan bàyyi fa yàlla ibaadun amsaalukum nee na ñooñu ay jaam lañ comme yéen ay jaam lañ comme yéen fad'uuhum nee na ñaan leen falyastajibu lakum in kuntum saadiqin su fekkee ne li ngeen yaakaar dëgg la ñooñu ngeen di ñaan te yàlla kon nañ nangu seenu ñaan ba xam da nga gis mu nangoom déet yow mi dem ba ci bant bi nga samp yow mi dem ba ci xiram wa yow mi dem ba ca xabru ba nga tàllal sa loxo di ñaan xoolal ba xam kooka mooy jóg ne la nangu naa li nga doon ñaan wala déet borom bi tabaraka wa taala nee na ñooñu duñ ko nangu borom bi tabaraka wa taala nee na julli gi ak rendi gi ak sa dund ak sa dee lépp sax faf lillahi rabbil alamin sunu borom tabaraka wa taala moo ko moom sañoo ci jox benn doom aadama ak cër ngir wattandiku lépp loo xam ne day tax nit ki mën a dem ba tàbbi ci bokkaale tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy dara darai muy lépp loo xam ne su amee xëy na moom ci boppam du bokkaale de waaye mën naa yóbbee nit ki bokkaale yooyu daf ko doon wattandikuloo nit ñi moo tax Ali bi Abi Talib benn bés dafa woo ab taalube muy Abul Hayyaaj al yi ne ko kaay ma yónni la ci lu mel ne la ma ko baax ka yónni woon sallallahu alayhi kaay ma yónni la ci lu mel ne la ma yonent ba sallallahu alayhi wa sallam yónni woon nee na ma ne ko loola lu mu doon mu ne ma demal bul bàyyi benn estati bu taxaw lu dul nga dindi ko bul fekk benn xabru boo xam ne dañ koo tabax lu dul nga maasale ko maanaam waxul sax buñ tabax waaye mushrifan boo xam ne dañ koo yëkkati ba mu ëpp lu dul nga wàññi ko ba mu wàcc moo tax dañuy wax ne xabru bi waruñu koo yëkkati lu ëpp ab chibre chabre digganteem ak suuf su kawee rek dañ ko war a wàcc waxuma la nag teg bâtiment ci kaw xabru yooyu yépp yu daganut la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tere mbokki jullit yi kaw këyit a ngi woo xam ne benn recensement moo ci nekk boo xam ne bu doy waar la benn santar moo ko génne boo xam ne buñ xam la ci ay gëstu yu xóot yoo xam ne da koy def ci fànn yu bari ñi koy wax PEW pew kooku Washington la nekk dafa def benn gëstu boo xam ne ci pas-pasi population yi nekk ci réewi lislaam yi Afrique yi ci la jëm muy gëstu santas ci bépp population bu dee ñaata ci ñoom ñooy ñoo xam ne gëm nañ ne ren di dara yóbbu ko ci ay xiram wala ay rawaan mën na indi njariñ waaye mën naa dàq lor ñaata ci askani Afrique yi ak ci réew yi ñoom ñoo toll foofu nga xam ne gëm nañu loolu gëm nañ ne def ay xarxa fuufa wala nga am ay rawaan di leen bégloo ci ren di mën naa indi njariñ waaye mën naa dàq lor mu doon ay résultats yu doy waar ndax réew ya ëpp ay jullit nga xam ñoom ñoo waroon a ëpp tawxiid faf réew yi ëpp jullit ñoom ñoo ëpp ak aju ci mbir yooyu recensement bi dafa wane ne ka nekk ca bopp ba ci réewi Afrique yi nga xam ne jullit yi dañu faa bari mooy Tanzanie ñu ne 60 pour cent ci ñoom gëm nañ ne yooyu mën naa jariñ mën naa dàq lor ñu ñëw ca ñaareel bi muy Mali gii ñu dendal ñu ne 59 pour cent ci ñoom gëm nañ loola que leen mooy sunu Sénégal gii ñu gëm na cinquante huit ci sénégalais yi nee na gëstu boobu nee na gëm nañ ne reen gi ay yëf ak rawaan ak yu mel noonu mën naa indi njariñ mën naa dàq lor ñu toppee ko noonu nag Afrique du Sud cinquante six Cameroun quarante Guinée Bissau quarante et un Tchad quarante Ouganda 27 Ghana 26 Djibouti 22 Congo RDC 21 euh, Kenya mooy Kenya 16 Éthiopie ak Nigéria ak Zambie bu ci nekk 11 pour nga ñëw Rwanda fekk 5 pour cent ñoo fa gëm loolu te ñoom seeni jullit ñi ngi toll ci 10 pour cent kon ñoom ñoo waroon a ñu aju ci ay xiram ak yu nuroog loolu waaye ànd ak ni julli gi néew na civilisation ba ak wute ga tax na ñu néewlee noonu kon mbokki jullit yi jullit bi su taxawee ci yu mel nii war naa walbatiku laajaat boppam ayna ndax min al iman ana sun gëm yàlla fan la toll fan lan toll ci defar suñuy pas-pas wootekat yi ak imaam yi ak sëriñ si ak tasaarekati lislaam yi nga xam ne histoire u Sénégal garde seeni tur ba lislaam am ci sun tund wi lu ëpp junni at booba ak léegi lan mooy liggéey bi nga xam ne def nañ ko fi mbokki jullit yi ndax du nun nooy faral di damu lool ci sunuy maam di wax na ñëw dugal lislaam ñoo ko tasaare ñoo ko taxawal mbokk jullit yi aajo woon nañ bu baax a baax xoolaat suñ bopp xoolaat li nu nekk mënee suta nangu sunu réew mi ak place bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ci biir monde islamique bi ak sax ci civilisation yeneen yi place bi mu fi am ñu ñëw ba ci seekalub ñaar fukkeel ak benn di fukkeel ak juróom ci seekalu jullit yi ñu ñëw fii ñu naanu cinquante huit pour cent ci Sénégal yi dañoo aju ci ay xiram yu kenn xamul yu mu doon su fekkee delsi nan nag xoolaat li ñuy dund dëgg dëgg dëgg te waxante dëgg am na ñaari kuréel ci doomu aadama yi nekk fii suñu réew mi tey ñoo gàllankoor nit ñi ba dox seen diggante ak tawxid ba ci jiitu moo di jabar yeeg ñi leen nu gisaanekat yaa xarga fuufa yaa kiy def noonu ak seen publicité ak seen coow ak seen sol colum diine ba nit ñi mënatuñ leen a xàmmee ak jullit yu baax yi mënatuñ leen a xàmmee ak sëriñ si kooku gàllankoor la boo xam ne tax nañu bari gëm ñooñu nangul leen suñu leen waxee ñu topp leen ñu réeral leen ñaareelu kuréel bi mooy nit ñoo xam ne diine lañuy askanoo seen intérêt personnel nekk ca biir lañ fas ñooñu lu gën a bari dañuy tuddoo ay kilifa yu baax yuy jàll waaye ñooñu seen intérêt personnel tax na ñu jàpp ne woote tawxiid bu tegu ci alquran ak sunna su taxawee seen intérêt bopp yooyu yépp day màbb day yàqu loola moo tax ñu taxaw ci tuuru wax ne dañuy défendre mag ña tax képp kuy woote jëme ci alxuraan wala sunna lañuy ñuy jëkk a wax mooy kii contre mag ñi la ngir yàq deram ci kanam nit ñi fekk moom ma ngay tuumaal sax mag ña ndax kii woote ne alxuraan ak sunna ay alquran baa ngi xaddisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam a ngi nga ne kii kon dafa wuuteeg mag ña kon yow yaa ngi wax ne mag ña nekkuñu woon ci alquran ak sunna kon kooka noonu mag ñi la te yëgu ko su fekkoon ne du intérêt personnel moo tax nit di taxaw di wax loolu kon su gisee kuy woote ci alxuraan ak sunna day bég ca loola day day wax na sama maam ak samay baay ak samay sëriñ day lu mel nii lañ doon jéem kon suñ demee ba jëmmi jamono am ñu jóg di góorgóorlu ci loolu kon ci sunub tool la ñuy liggéeyee kon lan wa sahlan jàppalanteeg ñooñu dimbalanteeg ñoom mooy tax waaye nag bu dee intérêt bi da ngaa jàpp ne njariñ yi dikk day war a dikk li feeg nit ñaa ngi ci réer day war a dikk li feeg nit ñaa ngi bokkaale day war a dikk li feeg nit ñaa ngi sori alquran ak sunna sori tawxid nga jàpp ne foofu la intérêt bi jóge kon wax dëgg yàlla kuy woote tawxid wala ngay woote alquran ak sunna ab noonu rek nga koy mën a jàppe waaye ñooñ ñëpp war nañoo xam ne adduna ak li ci biiram jarul lu toll ne tarfatul ayn nit ki di ko dund ci keppaar keppaarug réer wala ci keppaarug bokkaale wala keppaaru jël dara ci yi nga xam ne yàlla moo ko yeyoo di ko jox kenn koo xam ne yàllaa ko bind loolu moo tax sun borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali bis buy ñëw boo xam ne bu agsee yooyu yépp dana réer yooyu yépp dana réer nee na a ngi ñëw boo xam ne it tabarra alladina tubiu min alladina tabaau nee na bés a ngi ñëw boo xam ne ñañu doon topp ñi leen doon topp ñooy waa màng jëm ci ñoom ñu ne leen déet bu leen nu topp jotewuñu ñoom da jotewuñu yéen dara set ci ñoom wecc wa ra'aw al'adaaba wa taqatta'at bihim al asbaab mais parce que ñoom yépp ànd nañ jisandoo mbugal mi muy ñëw te ànd nañ gis ne kon sabab yi doxoon seen diggante muy boomi kullale yaag boomi cofeel yaag yépp dagg na nag ca jotaay booba nee na wa qaala alladina tabaxu ñi nga xam ne wa qaala alladina tabaxu waaw xam ne ñoo toppoon ñoo doon toppe ñu ne law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna aka neexoon nu delluwaat àdduna kon nii ñu nu def tey nu màng jëm ci ñoom ñu neenu jotiwunoog yéen dara suñ delluwaatoon àdduna nun dañuy set ci ñoom wecc kon bokk jullit ah waxtu des na fi de yaa ngi dund xoolaatal sa bopp képp koo xam ne turu diine la yor di la woo ci alxuraan ak sunna ak njub topp ko ndax yaa ngi topp alxuraan ak sunna ak njub ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku la ñëwal ci turu diine di la woo ci loo xam ne boppam la waaye du lislaam de wala mu lay yebal ci loo xam ne ay xar nga fuufal yu yàqi pas-pas nee ko fa ñukk ak lam am dem ca sa boroom dem ca alxuraan dem ca sunna te jàpp ci loolu ba keroogee dajeek sa boroom soo ko defee mucc nga boroom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ëllëg te toppoon ay nit ñoo xam ne ñoo leen réeral dañoo topp ay nit ba ñu réeral leen walla ay jinne kon ñaar yépp dal nañu ñëw nit ñi muy bu fekkee kili lay réeral ci turu diine jinne yi bu fekkee ki lay réeral ci turu ay ay xambak yu ko nuru nee na lu ñuy wax bu boobaa dañuy wax rabbana arina alladini adallaana sunu boroom ñi doon toppe ñooy wax de danoo bëgg nga wannu rek fii nu taxaw nga wannu ñi na ñi nu réeraloon min al jinni wal ins ñi nga xam ne ay nit lañu réeral nu ak ñu nekkoon ay jinne réeral nu danoo bëgg nga won nu leen soo nu leen wonee naj'alhuma taxta aqdaamina kon nun ñi leen doon yëkkati ca kaw ak di leen réyal dañ leen di tëral ci suuf fab su di tànk teg ko ci seen kaw lexe teg ko ci seen kaw taxta aqdaamina li yakuna min al asfalin pour ñu bokk ci ñu gëna a suufe ci way suufe yi noo leen yëkkati woon bañ bokk ci way kawe ya dañ leen a bëgg a wàcce tey buñ bokk ci way suufe yi kon suñu borom danoo bëgg rek nga won ñu noonu tey nu gis leen loolu ay mébét la ak i wax aku réccu waaye béréb ba yu mel noonu nekku fa ku ñu indi naan ko mi ngi nii def ko ci suufi say tànk ak yu mel noonu ni ko waxe rek ca aaya ba jàll moo di kadalika yurihum llahu amalahum xasanatin alayhim wa ma hum bi xaarijina min annaar loolu mooy seenu àtt yàlla na sunu borom tabaraka wa taala musal ci loolu yàlla na sunu borom tabaraka wa taala may ak jàpp ci tawxid ak siraatul mustaqim ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu jàpp ci loolu te yàlla rekk tax lépp doon lu sell lu tegu ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne mooy jàngalekatub jàngalekat yi nekk ca loolu ba keroog nuy wuy ci sunu borom tabaraka wa taala allahuma ainna ala taatik allahuma ainna ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain